Sëñ Tuubaa fa wut fa lu wut yàlla fa wut fa lu wut bu yowmal qiyaama da ngeen xam ne yàlla fa wut fa lu wut. tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. ànd na nag ren ak ay xat-xat. rawati nak xew khat khati ndox lolou ñep ñep ko yëg lu way gàtt gàtt ak deg deg nga ñu ne ndox ndox ndox ndox bokku yi nak lolou jàngal nañu ren aya bi suñu borom tan wax nan ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik lépp lo xamne dox nga jëm ci dajé ak mom mu mel na nga bëgg yàlla la ko jox ndax yàlla ci ay sabab lay jariña jàmm bi waaye nag na tugg toog ba dara ñëwutit nee na ku ku ku ko comme dal bul ko bul joxoñ yàlla yaa ko teg sa bokk yi ndox dafa bokk ci li ngay xam ne munta ñàkk ci dundum nit dem nañ ba wax ne nit ki sax sooy xare ak moom lu xare bi metti metti su ne daa bëgg ci ndox nga yor yow te fekk soxla doomu adama tax mu soxla ko waroo sañoo ko ko tere ta yaa jamar la ko nit ñepp ko bok waye nak ñu nek fañ ne ñom dong ñoko mëna yoral seen bop mu mel na nam wara mel ndax ku bëgg a nit jëlé ko aduna num gëna gaawé a bam baña am ndox rek nit mëna baña lek mëna baña nelaw mëna baña am fu mu am garab kër gu dal lim koy doyee naana ci gën a tuuti rawati ab jullit kon mag jàngale woon na sukkandiku ci alxuraan ndox yi yàlla dénkaane moo ngelaw yii nga xam ne moom la ñuy nooy yàlla dénk ku kenn moo ko yoral boppam ndax bu ko tegoon cib loxo rek nit ñi ni ñuy toll du ñu toll ku mu ko teg ku mu tegoon ci nooy ngelaw li nit ñuy nooy yi ni diw ko dénk léegi tey mu la cee xiise ay moroomam wala mu du ci laaj njëg gu cher loolu la xam bu yàgg xam na lépp moo tax mu téer ko boppam kenn ku nekk mu dala si jox la nga soxla li fekk boo dunoon téeméeri at da nga noyyi téeméeri téeméeri téeméeri ngelaw yu baax waaye ndox mi nag moo ci raw dangay dégg ñu naan diw moo yore mbay mi mën naa am lu mu ca yor a antum tazraunahu am nahnu zaariun tontu la mooy axakay ah, yow yaay bay bay dunul yor ab gopp nii rek wala dem toole ko ñëw waaye ñor ko muy sax di ñor di tóortóor ba ñor moo tax ñuy wax sotti waaye ndox daf ca wax ne afaraytumul maa alladi tashrabun xanaa gisu ndox mi ngeen di naan a antum anzaltumuhu min al muzni am nahnu l munzilun ndox mii ngeen di naan di ci jëfandiku di ci faj seeni soxla xanaa seetlu leen ko kemaan gi ci nag yéen bu ngeen di wuti ndox dangeen ngeen koy sabablu ci suuf yàlla dajal leen ak moom waaye léeg-léeg moom wàcc ko ci asamaan si ba fépp daj lépp sax lépp ñor loolu man ngeen ko wala mënu leen ko tontu la mooy déedéet ñun mënuñ ca dara dañ la koy bàyyee moo tax diw moo yore ndox mi bokkaale gu ndaw la diw moo yor ndox mi bokkaale gu ndaw la ndax da bëgg a jël cër suñu borom def ko. mag nag jàngale woon na fii ci Sénégal ci dëkk bii ñu nekk 1948 bañ ko mayee ne ko daañu la gasal ñetti teen waaye nag ndox mi ci dawal wata moo koy wëgg mu ne ay ca benn bi mu def lu ko fii Tuubaa darul mën na benn ba ñu def ko darul mooti bañ ko ne dañ koy dugal ci keesu nguur nguur di ko wëgg da ko ne déedéet goj baag boroom kër moo koy jënd teg ci ëtt ba ku rooti boo ñëwee tegaat fa ku bëgg a rooti rooti waaye da su ko teg ci yenn loxo mu koy xiisa mu ci ci xiisa moroom ja kon boog eh, amoon na njàmbatu ndox waaye loola ci tënk mooy sababu ku moom Tuubaa di fayal Tuubaa waa di fayal waa Tuubaa ndox mi ba léegi si xaw ma fu mu mujj nag waaye loola mooy cosaan la boroom kër mooy jënd gooj ak baag teg ca ëtt ba ku bëgg a rooti dem rooti ñëw tegaat fa ñëpp bokk ko waaye soo tegee goj beeg baag bi ci loxo yi nit bu ko neexee ne dama tëdd mënuma la koo jox nëgë ni bu ko neexee mu ne daa teel mënuma la koo jox ndax ubbeeguma walla lii walla laa loolu nag lu mat a jàng la kon ndox gannaaw bu ko yàlla yoree lam cay wàccee kus nii yoxo ya muy tege kër gu nekk na ko wutal na ko yoral boppam dëkk bu nañ ko yoral seen bopp lu ko moy jàmbat du gaaw a jeex jàmm nag mënut a ñàkk waaye fii ñu daje woon di ko fi defee bisu cant la ñu woote woon bokk yi ay jëmm ngi nii yoo xam ne ci Touba wala foo xam ne barab Touba fa nekk bu leen nit ñi royoon jàmbatu ndox du am am na si ñoo xam ne dañoo laaj forage ñaata lay jar ñu ne leen nangam ñu ne am leen nañ gas forage am na ci ñoo xam ne bàyyi nañ àdduna yal na leen yàlla yërëm waaye seen jëf mi ngi fi ba tey nit ñi di ko jariñoo su fekkoonte ne kenn ku nekk gëm daa war a def ni diw ak diw ak diw gas forage kenn du jàmbat ndax xawma koo koy jàmbat ginnaaw ku ne jàpp na ne moom la war xawma ku ñu koy jàmbat waaye ndox moom bokk yi ci tënk yàlla joxu ko kenn ndax lay bañ nit ñi dënkante ci seen biir waaye ñenn ñu nekk ñoo ko war a yoral suñ nafar nafar boobu yi mag moom waxoon suñ fal lu mag nee na goj ak borom kër moo koy jënd teg ci ëtt ba ku bëgg dem jël rooti boo ñëwee tegaat fa amut naaj na amut teel na su ko defee nag loolu bind bu yomba jàng la bu yomba moka. weesu na ren weesu na waaye kenn ku nekk na am yéene bu déwénee moom ku nekk gas sa ab forage wala boog ñi ko yàlla man loo te àgguñ ci forage bu kër xewee yaat tuuti nañ fa gas ab teen def ca pompe loolu tam pexe la waaye nag teg ko ci ay yoxo moom yu dul loxo suñu boroom wóorut kenn ku nekk yor ko nag sabab lu ca bàyyi la ci des yàlla waaye teg ko ci loxoom ne teegum di dégloo nii mu demee dong lay demee. ku ne di joxañ moroomam te fekk day ne ci ay yoxo rek nañ maase ko nekk ci yoxoy suñu borom ba faw rek tey sabablu te ñaan suñu borom e, suñuy aajo yëpp doxe faju ci ren ñi nga xam ne dañu ne laaj mënuñu jóge fañ nekkit yal na leen yàlla yëkkati ña jiitu yal na leen yërëm ñi war a dellu yàlla na yàlla yóbbu ci jàmm ñu fekk fa jàmm wéra gi ñu dégg ci àdduna bi yépp it yàlla na ko suñu borom yamale eh, te ubbi bunti xéewal te ubbi bunti naataange te xam nañ ñun ñi wuy si woon ñëpp war nañoo jàng ci ki doon jom fit way ak gore ak it xam sa bopp xam sa bopp xam ne fii ci àdduna lu ci war a sotti ci sa loxo la war a jaarale su ko kenn ku nekk fasee lépp ay dox te dara du yàqu kenn ku nekkit ci mbir mi la tegu ci loxoom war na koo sàmm bu baax balaa la yóbbu ëllëg di am ndax bokk yi koo xam ne bay na ba mu ñor mu góob ko ci gàttal yéwénal na ko ba nga xam ne tibb seex rek moo ca des waaye waaye lekkin wa war naa rafet te bàyyil fa keneen ëllëg wàllam ndax suñu fal mi doon tudd léegi doomam sëñ Modou Bousso Dieng nee na bokk naa ak moom ndab ganaar na ca kaw ba ñuy coppati ca kaw ba kaw ga cate nee na ma bëgg a dugal sama loxo ca suuf dane ma bul ko lux mbut li ci kaw ñii fi Sëñ Tuubaa fa yàlla fa wut fa lu wut bu yowmal qiyaamee da ngeen xam yàlla fa wut fa lu wut fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetloo